pays démocratique comme le Sénégal, on a retiré la licence d'une télévision privée. Alors, seen poigne ca kaw fii. Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Libérez! Merci à tout le monde. Si Mais ex-ministre de tutelle maître Moussa Bokar Thiam. alors euh, kaddu yi du gudd parce que Lisa a parlé au nom de la CAP dès l'entame donc de cette activité benn bi dafay jëm ci reporter yi nekk en face de moi c'est vrai que ni euh, mun naa wax ni sax les mots de sa Anne pour reprendre les termes de Bougane résonne encore dans mes oreilles lors de la cérémonie de lancement des assises des médias da leen doon wax ni ils sont souriants mais ils sont dans la précarité donc taxaw su naaj du do loo xam ni daf leen a jaaxal parce que su tawee ñi ngi fi dans l'après-midi am na ay manifestations yi nga xam ne woote nañ ko ñu autoriser ko ou pas dinañ fa dem dinañ inhaler li nga xam ne moom mooy grenade la yi kon ñii dañ leen di wax gàcce ngalaama Vous l'avez tous dit tout à l'heure dans votre quand vous avez pris la parole, ceux qui m'ont précédé dans la prise de parole, d'abord la mobilisation. Parce que tout à l'heure, euh, demandant la question à Daouda Mine pour savoir le nombre le nombre exact de confrères yi nga xam ni am nañ la carte nationale. mat nañ près de 2000 à Dakar et à l'intérieur du pays loolu suñ koy méngalee ak lu présent fii c'est vrai que mën nañu wax ni tuuti na lool tey itam mën nañ lu ëpp lii. loola waral ma siy profité parce que reporters yi peut-être lii la mën bu ñu fàtte ne ñoom moomuñu seen bopp si ay rédaction la ñu nekk donc on interpelle tout le monde le patronat toutes les organisations de la presse yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk pour que beneen acte bu ñuy posé waat ñu sonné la grande mobilisation pour que lépp lu ñuy wax nit ñi daal di koy dégg pour revenir nag ci li nga xam ne tey jii moom moo ñu fi dajale muy le cas de Walf cette décision qui a été par le ministre de la communication, des télécommunications et du numérique, c'est un acte de censure. Un acte grave bi nga xam ne respecté wul benn yoon règle yi nga xam ne tey jii moom mooy encadrer not métier moo tax ñun ñëpp ñun ñoo war a jóg taxaw doon benn say pour fair face parce que su fekkee ni lii damay wax di interpeller directement Bamba Kassé di interpeller Lissa di interpeller Saloum di interpeller tous les présidents d'association ba sax Abdoulaye Diallo mii nga xam ni euh, ba mi nga xam ne moom moo représenté presse internationale bi su fekkee ne dañoo dem ba suñuy mandat jeex te Walf Fadjri amul licence am nañu jàpp ne jarul ñuy présenter bilan ñun ñëpp dañoo lajj autrement di tey la waalo gën a aay si mobilisation bi parce que on l'a dit il y a un plan d'action qui a été planifié qui a été modifié entre-temps mais c'est pas parce que dañoo reculer d'un iota non non non non dañ doon mesurer impact bi looloo waral ñu proposer à la place lundi ba dibéer ñu boy boycotter les activités gouvernementales loolu nag ñun xam nañu ñun reporters yi képp mënuñu kaa def parce que patron de presse yi suñ si jàppul loolu ñu bëgg yëpp du mun a antu mais heureusement ils sont avec nous ñëw nañ toog ak ñun waxtaan ñun ñëpp cette fois ci ñun ñoo ànd si bi xeex pour rek fexe ba Walfadjri jëlaat licence am donc loolu la ñuy woo ñëpp tout le monde nag même les organisations de la presse parce que il ñu xam ko su fekkee ne tey ñu ngi wax démocratie partout partout dans le monde c'est parce que dafa am benn presse bu taxaw Sénégal les doyens yi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi jiitu gis nañ ni nu presse bi évoluer donc du tay jii comme ni ko Pape Alé waxee le pouce bu war a réer suñu loxo ñun nag na seen xel dal ñun convention bi nga xam ni moom moo ëmb ndaw reporter yi le 7 maanaam mat na un an bañ ñu falee ak tey le 7 lañ ñu fal muy ab samedi dibéer ba le 8 ñi ngi Kaolack ànd ak les organisations c'était pourquoi pour libérer Pape Alé Niang donc dès le départ wax nañ leen ñun fan la ñu jëm mooy bépp combat de principe bu fi am la convention sera devant ba ñuy def barki démb doxu ñaxtu lii say la première ligne c'était la convention kon tey suñuy xeex pour ñu delloowaat li nga xam ne moom moo di wal fu seeni licence kenn duñu jiitu si li nga xam moom moo di xeex bi cap nag dinañ def seen yëfu bopp ñun itam convention bi dinañ xool itam suñu yeneen matuwaay yi nga xam dinañ ko mën a xeexee dans la légalité di interpeller nag tout le monde le médiateur de la république di interpeller ñëpp ñi nga xam ne ay défenseurs u liberté d'expression lañ liberté de presse pluralisme démocratique médiatique fii ci biir Sénégal autant pour moi ñoom ñëpp ñu mobiliser wu wax ak le président de la République du Sénégal parce que comme Lissa l'a dit notre interlocuteur n'est plus maître Moussa Bokar Thiam c'est le premier ministre Amadou Ba wala directement ki nga xam ni moom mooy le président de la République il faudra que nu mu gën a gaawee parce que plan d'action bi balaa ñoo egg lundi dans les normes Walfadjri tey waru ñoo fanaan te delloowuñ seen licence lu ko moy dinañu mobiliser wu fépp fi nga xam ne war nañ fa dem pour xeex dinañ ko def parce que am na suñu plan d'action les Nations Unies partout fépp fu ñu mun a dem pour clamer dinañ ko def ànd seeg nag soutien wu reporters yi parce que sans vous yéen ñu taxaw en face de moi parce que suñu wax reporters yi souvent dañuy xalaat taskat xibaar yi mais dañuy fàttalee photographe dañuy fàttalee caméraman suñu xeex la ñun ñëpp tay jilee donc ñun ñëpp nañu booloo suñ ko deful xeeb bi dina dalaat sa kaw yow mi taxaw ak man xeebi dina dalaat ci kaw sabar ci kaw liisa wala si keneen ak keneen donc maa ngi leen di remercier di bàyyi Bamba mu parler au nom de la CAP auzu billahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim dama am bu rëy tey bi ma sama rakk mi ngi Maram njaay jiitoo jël kàddu gi wax wax joo xamante ne daanaka amuñu luñ siy dolli mbégte moomu dafay ànd ak fierté ci biir waxam nee na bu suñuy ay mandat jeexee te lii ñuy xeex ñëwul daanaka lañoo lajj am na sax ñoo xamante ne mandat yi jeex na ba noppi loolu aussi ñu leeral ko mais mais li nga xamante ne mooy mbégte mi mooy nga gis ay gone yu mel ni ñoom Migui ñoom Sabar ñoom Absa ñoom euh, Sabar ñoom Mor Amar ces jeunes de la convention des jeunes reporters engagés te mënoon def ni seeni morom nag parce que dépense moom ñëpp koy uti mais dañuy bàyyi ci seen temps bàyyi ci seen énergie ànd ak seeni ñoom càmm nekk ci guddeeg bëccëg léeg-léeg ma jox seen biir parce que am nañ ñoom jog euh, bërëbu waxtaanukaay mais ba ay xaaju guddi da leen di ñuy waxtaan te li ëpp ci seen waxtaan mu ngi jëm ci lu gën a ñoŋal situation reporter yi lu gën a ñoŋal presse sénégalaise donc mi ngi noo bëgg ngeen tàcc seen bopp. bu loolu weesoo ñu ngi woo patron de presse yi c'est vrai c'est ñoom ñëpp seeni caméra teew na fii seeni équipe de reportage teew na fii. mais li doon gën rafet ginnaaw ñoom ay nawle nañ ak ki jiite wal fajiri ginnaaw ñu ci bëri ci ñoom yàlla dogal na ci seen jaar-jaar jaar nañ wal yi ba tey ñu mën a doon ay patron de presse jàpp naa ni waroon nañ gën a teew naam nag ci biir kap nañ bokk waaye seen présence symbolique doon na nekk lu gën a rafet donc ñu ngi leen di koy fàttali di jéggulu nag ci interpellation publique bi di leen wax ni mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam Sénégal bi mu dee Sénégal ba léegi bi ñu fee fekkee ñuy ubbi ay tele ba léegi yàgg na c'est la première fois Sénégal ñu ñuy tëjal ab télé ci jamono yi weesu am na ay réew yoo xamante ni suñu ay voisins nañ lu mel ni am na fa. mais dañoo jóg bien que ay militaires ñoo nekk au pouvoir nest Lisa dañoo jóg def benn say jàmmarloo ñu delloo leen la ñu doon laaj en Guinée il y une journée sans presse et sans précédent au lendemain c'est une junte c'est des militaires ñoo yor réew moom foofu amul ay démocratie ak ay yu demee noonu mais dañ leen ko delloo bien que nag am na yeneen violation yu fa am donc loolu lépp li muy tekki mooy lii waruñu ko seetaan ndax gàkk-gàkk la ci suñu démocratie Sénégal dafa mës a nekk réew moo xamante ne ci wàllum presse amul lenn lu mu doon envier yeneen réew yi ko wër Sénégal ngay ñëw gis fi journal bu jar cent franc cent franc butéelu ndox ak journal ñoo yem njëg réew yi ñu wër yëpp yi ci gën a yombalee entre deux cent trois cent ba cinq cent la donc fii dañoo def ay jéego yu ma yu rëy rëy rëy jëm ko ci démocratiser l'accès à l'information sénégalais bu ne da nga yor sa télécommande toog sa kër yaay fay sa courant sa xaalis tele bu la neex ngay seetaan mënuñu nag. saa su ne mbéj mi di jëm ci benn côté rek donc pour bañ a guddal naaj bi tàng na tey la àjjuma dañoo war a julli ji juma am na yeneen activités yu ñu war a dox suma reporter yi xam naa ne bu ngoonee ñu ngi leen di dispatché ñi war a dem fële obélisque ñi war a dem Walf donc li ñu si mën a tënkee mooy d'abord jaajëfal ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne tey seen seen euh, jot may na leen ñu ñëw teew ñu jaajëfal leen ñi seen jot mayul ñu ñëw teew te ñu ñu koy fësal ci seeni jumtukaay maanaam ci réseau sociaux yi ñu jaajëfal leen ñi nga xamante ne jotuñoo ñëw ñu woo leen pour ñu gën a ñëw yokk ci say wi ndax bu fekkee ni fële ca Saint-Louis mu ngi Maram Njaay moom mu koy wax léegi def nañ fa ñoom it seen rassemblement bu mag dégg na jëmale ko également ci même cause bi dañuy woo yeneen section yi nekk ci région yi ñu sukkandiku ci loolu ñoom it def lu ni mel bien entendu xam naa convention ak waa CAP dinañ leen defal benn agenda wala benn calendrier boo xamante ne impact bi ci lañ koy gën a yëgee di woo ñëpp ci ñu respecter plan d'action bi plan d'action bi dañ ko xalaat mais également dañ ko waxtaanee patron de presse yi ñu ci bëri ñëwoon nañ keroog joxe nañ fi seen kàddu nee nañ dinañ ànd ak ñëpp ñu def lu ñuy wooyee boycott des activités officielles bu ñu fa jógee dinañ dem ci cappaandaw ga mooy journée sans presse suñu sañ-sañ nag ak suñu bëgg-bëgg mooy ñu bañ a yegg foofu bu ñu sañoon du ñu yegg foofu lu ñu sañoon nit ñi delloo ci seen xel soixante-dix ou plus de soixante-dix dégg naa Cheikh Niass keroog non tey xaw ma démb mu ne déjà cinquante personnes sont virées et il en reste xam nga man syndicaliste laa normalement travailleurs yi laay défendre mais cas yu mel ni bu amee da nga dul mën a wax dara amoo lenn looy teg ci koo xamante ne dañoo tëj jumtukaay bi mu doon jëfandikoo c'est aussi simple que ça donc par solidarité reporters yi ñu ngi def li ñu war def journalistes yi ak techniciens yi ñu ngi def li ñu war a def lenn dong des mooy patron de presse yi ñoo àddu si def ni lii sa fay parce que moom patron de presse la def ni ñeneen ñi bu ko defee ñu doggale xeex bi ci nu mu gën a gaawee presse précarisée ñëw leen ñëw leen fii ñëw leen fii Démocratie en danger. Presse précarisée. Démocratie en danger. Presse précarisée. Démocratie en danger. Presse précarisée. Démocratie en danger. Presse précarisée. Démocratie en danger. Rendez. Rendez la licence. Rendez. Sa licence. Rendez. La licence. Rendez. La licence. Rendez. La licence. Rendez. La licence. Rendez. La licence. Rendez. La licence. jërë ngeen jëf.